indil nag mooy xibaar yi nga xam ne ñoo jógee ca corona ba ca Inde moo di suñu njëlbeenu xibaar xëy na bu ñu jeexalee ci loolu danañ tëjji ci yaman ak fi ñu toll ñoom léegi waaye nag corona bi ci Inde la ñuy njëkk a waxtaanee tey itam li ñuy waxtaanee li ci gën a yéeme mooy jullit yi nga xam ne ñoo nekk Inde ndax jullit yooyu nekk Inde dañoo def euh, jëf joo xam ne Inde yi leen gënoon a gën leen a bañ. gën leen a gën leen a xeeb dañu wëlbati ku ci diine islaam ji nga xam ne moo nekk ci moo nekk ci Inde dem nañu léegi ba ma Inde ci boppam jël ay oto ay policier ngàbb ay rajo dugg ci biir réew mi di annoncé di wax ne li ñaan jullit yi ci Inde yëpp mooy ñu ànd ñaan yàlla ñoom ndax ñoom bu ñu ñaanee yàlla yàlla dana nangu ñoom ñoo gën a jege yàlla ñoom seen diine islam ji mooy diine dëgg euh, léegi nag li ëpp ci li tax loolu am moo diine jikko yooyu nga xam ne moom la ñu yonent bi yare te fekk bàyyi ko fu ñu mën a nekk ak lu mu yàgg-yàgg ak lu ñu fa bañ-bañ-bañ danañ ñu fa mujj bëgg loolu moo feeñ ci Inde ndax jullit ñi dañu fa am ay école yu mag yu mel ni ay école fala yu mag yi nekk fi Ndakaaru am fa école yu mag yu mel ni école jamaa jamaat salafiya yi nekk fii ci Ndakaaru am fa école yu mag yu mel ni école yi sëñ Murtala Mbàkke def ci Sénégal ci ci ci biir àddina bi ci ci ci Sénégal yëpp am fa école yu mag yu mel ni école yi mam eh, imam Assane Cissé yi mu def foofu ci ci Kaolack ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal jamaa yi yore ay daara ni ñu defee fii rek organisé bi ngeen gisee ko nii noonu dag la mel fa Inde noonu la fay deme teg-teg léegi bi corona bi demee ba euh, lëjë lëjëli yëfar yi nga xam ne ñoom ñoo doon jaamu ay xërima ki nag ak stati moom ñooñu moom talatuñu seen talatuñu seen bopp léegi jullit ñi ñoo tal seen bopp di leen talaale jullit ñi léegi ñooy dem uti ay euh, oxygène yi ñi nokki nokki lañu feebar yi jël seen i docteur yi jullit Euh, jël seen jàkka yi ak seen jumaa yi ak seen daara yi doon jàng ak place yaatu yëpp def fi ay lal di jël xanaa euh, euh, dikke yi nga xam ne ñoom ñoo di jaamukati xërëm yi di leen fa faj di leen jàppale te daaw rek lañ leen toroxal toroxal goo xam ne gi kenn mënu koo misaal léegi nag loolu moo indi kersa ak nangu dëgg ca gouvernement ba ba mu wax ne joxe nañu décret mboolem musulman yi nekk ci Inde buñ deeti julli dañ ànd ñaan ndax ragal nañu ne ñoom rek ñoo war a mën a ñaan yàlla teggi li ñu nekkee ñoom rek ñoo ñi jege yàlla ñoom rek ñoo yore diine dëgg léegi nag ñu déglu journaliste bi mu wax la xew Inde ak la nga xam ne moom la fa jullit ñi di def ci lu baax ak dimbale ñi nga xam ne ñooy feebar yi. سيندم الهندوس على هتك حرمات المسلمين قبل أشهر مضت بل ومنذ سنوات والهندوس عباد البقر يعتدون على المسلمين وينتهكون حرماتهم يدمرون المساجد ويضرمون النار فيها ويصادرون المصاحف ويقومون بكل الأعمال الدنيئة في حق المسلمين اليوم تعيش الهند وضعا مأساويا كأنهم يتعرضون للإبادة لكن المفاجأة هو ما قام به المسلمون لم يكن يعتقد عباد البقر الهندوس أن أولئك المسلمين الذين احتقروهم واعتدوا عليهم هم من سيقفون بجانبهم محاولين إنقاذ حياتهم فما الشيء العظيم الذي فعله المسلمون من أجل إنقاذ حياة الهندوس بعدما تخلى عنهم رئيس الوزراء مودي هذا ما سنجيب عنه بإذن الله فتابعونا حتى النهاية li nga xam ne moom ndax am indo yi nga xam ne ñooy jaamukati nag yi jaamukati estati yi daañu réccu li nga xam ne loolu lañ doon def ci julit ñi ca jamono ju njëkk maa ngi fàttaliku loo xam ne sax xam naa ne journaliste bi fàttaliku ko muy benn jàkk buñ doon wax masjidul baabar yi masjidul baabar yi malik baabar moo ko tabaxoon foofu ci ind te malik baabar ab buuru indo la woon waaye ab julit la woon masjidul baabari googu dafa nekkoon jumaa ju rëy joo xam ne dañ ko yéem comme jumaa yu mag yi nekk bi Ndakaaru léegi nag indo yi ne ñoom seen bakkan lañ ci gar fii dañ fay sampoon seen yàlla di ko jaamu kon nag léegi jàkka dañ ko fi jëli loolu ay ati at ñu ngi ci nekkoon di coow ay ati at ñu ngi ci nekkoon di coow waaye xam nga ind dañoo bari mbooloo bis ba ñu aaloo daal ba dal cee jàkka ja diggante suba ngoon day mel ni jàkka mus faane nga ndem jumaa nag laa wax mu ànd ak jël seen i miin miine ko ci saase toj ko lépp roñ ko bala ko wicc ñu daal di seen yàlla yi seen ja di ko jaamu ne seen yàlla la fi seen maam yi sampoon loola moo fay dellu ak yu ñaaw téef yi nga xam ne moom lañ doon def ci jullit ñi léegi nag bi nga xamee ne ñëw nañu ba corona ne leen xëm ba xaw leen a jeexal seen premier ministre bi nga xam ne moo jiite réew ma rendre démission rendrewul démission ci nguur gi déedéet dafa rendre démission corona daan na ma bi ko corona daanee nag mu découragé définitivement la jullit ñi nag ne a ah, déet yonent bi kat dafa wax ne amul benn feebar bu ñëw ci àddina te am na lu koy faj kon léegi ñun nañ jóg def li nga xam moom lu ñu sin diine sant daal di tàmbali di leen jox ay masque ñuy takk ñuy tàggale nit ñi di leen soriloo di leen tasaare mboole yi ne bu leen dajeeti tambali di ubi ay hôpital di sampo di sa jël ay docteur di di di di di di jappalé di di jappalé di jall jappalé ñafa nek jappalé gogu ñi di jappalé nak mo dem ba egg ci mu def seen kersa ñu daal di xol ba yag daal ñu neexul ba neexul way ñi legam li la seen yoonenti diglé seen diiné ji diiné ju deggo ngi ni diiné ju jégué yalla ngi ni diiné jo xamné ku ci nek da nga jibok sa borom diiné jo xamné ku ci nek la nga muccu légui ñu continuer deglu euh, euh journaliste bi gën a gën a gën a gën a gën a faram-fàccee ñu nit ñu gën leen a leeral عزيزي المشاهد تشهد الهند ارتفاعا غير مسبوق في الإصابات بالفيروس التاجي حيث يسجل البلد الأسيوي من 300 ألف إصابة يوميا إلى 400 ألف منذ الثاني والعشرين من أبريل الماضي مما تسبب في إجهاد النظام الصحي في البلاد ونقص حاد في أسرة المستشفيات وإمدادات الأكسجين والأدوية لكن وسط الأزمة والفوضى والذل الذي أصبح يعيش فيه الهندوس المتساقطين في الشوارع الذين لم تعد الحكومة الهندية قادرة على تحملهم تتقدم المنظمات الإسلامية لمساعدة المرضى خلال شهر رمضان المبارك حيث حول المسلمون في عدة أجزاء من البلاد المساجد والمدارس الدينية إلى مراكز للرعاية ومساعدة المرضى ففي ولاية غوغارد الغربية أنشأ المسؤولون عن معهد دار العلوم الإسلامي للتعليم العالي في مدينة فدوى دارة مركز رعاية لمصابي كورونا يشمل أسرة مزوجة nga dégg ni mu ko leerale noonu wax ne ah ñun day li ñu gën a jaaxal tey ci Inde moo di Inde yi ñi ngi dem ba seen gouvernement mënatu leen res ci wàllu corona bi Inde yi léegi ñi ngi dox di daanu ci mbedd yi di dee dem nañu ba léegi sax ci mbeddi Inde yi dañuy jël ay nit jël leen daal di jël mat seen kaw taal leen ndax ñoom ay nit lañu yoo xam ne ku ci dee dañ lay taal léegi nag ba nga xam ne gouvernement bi découragé na ci ñoom léegi nag organisation islamique yi nga xam ne ñoo nekk Inde ñoo daal di taxaw nag ne ñoom bu demee ba réew mi xamatuñ fu ñu jëm te ñun ay Inde lañ comme ñoom te ñun ay jullit lañu léegi ñun dañoo war a jël suñu responsabilité daal di benn mbooloo la bu fa nekk ñu ko daara xam nga nag ñoom eh, li ma jaaxal ci ind mooy baat yi gën a bëri ci Afrique da nga leen fay dégg xaw xawma nag lu tax loolu waaye daal baat yi gën a bëri ci Afrique da ngay dégg Inde di ko wax danañ wax acca danañ wax lan la danañ wax caabi danañ wax eh, bari na daal baat yoo xam ne dang koy dégg ci ñoom da nga naa xanaa ñi ay wolof lañ wala ay séréer lañ daara moo di benn mbooloo boo xam ne dañ ko formé woon foofu ci Inde mu nekk mbooloo mu mag comme ni daara yi alxuraan yi Sénégal yi mel léegi nag seen place yi ñu doon jàngalee ak seen place yi ñu doon euh, seen seen seen université bu mag bañ fa defoon ak mboolem palace yi nga xam ne islaama ko moomoon ak jumaa yu mag yi ak ëtti jumaa yi ak fépp jullit yi dañoo daal di gemb ne léegi daal ñii duñ leen bàyyi ñu ñii duñ leen bàyyi ñu dee il faut ñu jàppale leen waaye duñ leen bàyyi ñu ñu dee léegi nag. dajale seen alali bopp ak lépp lu leen nit dimbalee taxawu nag ci faj indu yooyu nga xam ne gëmuñu yàlla xetri leen ci corona bi dox seen diggante ak ak ak ak ak ak xam nga nga xam ne moo moo moo nekk ind nga xam ne eh, la yonent bi sallallahu alayhi waxoon ne eh, bu la nit defee njëkkar fay ko njëkk su yàggee da koy lif eh, ca mbokk ñaari mbokk kenn ka demoon ko man damay jokk samay mbokk samay mbokk duñ ma di ma dog dama leen dimbali ñoom duñ ma dimbali dama leen a ñoom dama leen a jàppale ñoom faale ma yeneen bi ne tekk baag mu ne ko bu fekkee loolu nga wax moo nekk ci yow yàgg yàgg leen di di maanaam wax leen ko xeeb nit ki su fekkente ni teraanga nga ko ëmbal mu mu ëmbal la musiba it soo continuer ci noonu su yàggee yow yaa mujj nekk kilifaam yaa koy ilif léegi nag dañuy gàttal ndax li ñuy wax ci Inde dafa bëri waaye loolu moom mooy la nga xam ne moo xew Inde nit ñaa daan daanu ci mbedd yi di dee lakkati niiw ya lakk nañoo lakk lakk lakk lakk ba mënatuñoo lakk vingt quatre heures sur vingt quatre dañuy lakk te xam nga nit pour nga lakk ko mu dafa dóom te yore woo électrique lu may matt nga koy defee coono boobu kenn xamul nu mu yem bu la sa bët mayoon ni nga xam ne noonu la ñuy lakkee nit ña fa ind di nga yëmu caala sa borom da nga gis lu carré boo xam ne ay lobb lañ koy def lobb bu nekk ay ñetti nit lañ def jël ko mat waxuma dara waaye balaa balaa corona ba jeex luy bant ci ànd ak di ko wër daanañ ko dagg lépp lakkee ko lakkee ko ay niiw ndax ñoom seen niiw yi lañu leen di lakk léegi nag loolu nga xam ne moom la jullit ñi tàmbali def ci ànd moo wëlbati xol yi indo yi nag ñu ne waa ji ñii ñaata at junni at ak ñeenti téeméer daanaka ba lislaam duggee ak léegi lépp lu nekk ci ñaawteef ak mbon ak jëf ju bon def nañu leen ko lépp lu ñu xam ci lu ñuy def ni ci lu bon rek def nañ leen ko ñu dem ba réew mi egg foo xam ne ñëpp jànnexe nañ kenn xamatul fu ñu jëm jullit ñi dong dong dong dong ñoo am dalu xel mën a taxawu seen bopp wëlbatiku di taxawu ñeneen ànd di nga un milliard cinq cent million <coughs> ak seen armée ak seen i bagage dem ba gouvernement bi rendre démission delloo loxo ne léegi jullit ñi ñaan leen borom asamaan ñun sunu nag yi ñu doon jaamu ak suñu istat yi amal ñu njëriñ loolu moo nekk Inde léegi nag li ci gën a yéeme mooy liñ ciy teg léegi da ko gis léegi incha allah ba loolu amee nag leneen lu gën a yéeme moo am xam nga révolution boo gis day jóge ci gone <clears throat> ak jigéen bi ñu demee ba nga xam ne ah, jibarkat yi charlatan yi ñi nga xam ne lu ëpp junni at Muhammad ñëwagul àddina lañ nekkoon ci la ñu nekk di waa kër eh, xanaa dike yi jaamukati xim yi tabaxkati stati yi li ñuy silwise ak li ñuy mën a solo lépp seen xel yi ñoo gën a dëpp xeli on ndax da di seet ba àddina de àddina ba léegi indo yi nekk ci jaamu ay xirim nekk ci tabax ay ay ay jëmm di leen jaamu ñii di jaamu ay jaan ñii di jaamu ay mbott fas loo ne amut ànd nag ci xeeti jaamu yàlla rek am na fa am na ñuy jaamu ay picc am na ñuy jaamu ay xaj am na ñuy jaamu ay golo am na ñuy jaamu ay jinax am na ñuy jaamu ay nag am na ñuy jaamu ay garab am na ñuy jaamu ay ay ay esthétique yoo xam ne ñoo ko yetteel seen bopp moom daal façon jaamu goone amut ànd rek jaamu googee am na ànd ak li ànd di avance ci technologie yëpp loolu lañ doon jaamu léegi nag bu yàlla indee corona bi ah gars yi sàkku so ñi doon jaamu nag seen nag yi mënatuñ leen dara ñi doon jaamu béy seen béy yi mënatuñ leen dara ñi doon yett ay stati di ko jaamu seen stati yi mënatuñ mënul mënul leen dara léegi nag jullit ñi ne leen taxaw leen nun suñu yàlla yi asamaan duñu jàq fekk ñu ngi ànd ak moom jigéen ñi ñoo màbbu jël seen i kuur ak seen martu topp estati yi nga xam ne ñoom la ñu daan jaamu ci seen maam ya ba léegi di tajaxe ñoo gone yi ci ñoom dara li ñuy làkk nag ci Inde mooy lu fi seen njëriñ ay junniy at suñuy maam di leen jaamu lu nekk ñu daañu ko gëmloo di xam le ne yéen a man dara nekk yéen mënu leen dara corona ngi nii mënulu leen mënu leen ci dara ndegam nag léegi corona mi nar naa jeexal réew mi te yéen seen yàlla sunu yàlla yi mënu leen ci dara il faut jëlee leen fi di bu ma statut yi di rajaxe di toj loolu moo am Inde ñu déglu ko

تداول ناشطون على منصات التواصل لقطات فيديو لنساء هنديات يقومن بتكسير عدد من الأصنام الهندوسية بعد مقتل الآلاف من الهنود مؤخرا بسبب وباء كورونا المستجد وبحسب المقطع تظهر النساء وهن يكسرن الأصنام ويصرخن لم تحمين هذه الآلهة من كورونا فما فائدتها وتتعرض الهند لواحدة من أكثر فتراتها مأساوية بعد اجتياح طفرة جديدة من فيروس كورونا البلاد منذ أسابيع ووصلت نسبة الإصابة اليومية لأكثر من 350 ألف فيما بلغت الوفيات اليومية أكثر من 3000 هندي وأعلنت الهند تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي ما يرفع mu ngi noonu loolu moo xew ind tabax yu rafet yooyu ñu daan def ay ay yàlla defal ko ay juróom benn loxo bet gu nekk ñetti loxo di ko taxal di ko di mu yor ay mbiib di mbiib ñu emaay ko def ko ba nga xam ne boo ko rombe sax da ngay bëgg ne bi sa kër rek la jekk ngiram taar ñu di ko yëkk ay ceeni or di ko taaral ay cuuraay di fa tëgg seen tama yooyu fecc di ko wër tajaxee nañ ko nag léegi jigéen ñaa ngi ci yàlla yi rek di rajaxe kenn munu ci ñoom dara ñu fanatique ñi sax ngi leen doon jéem a tere waaye ñoom daal nee nañ leen daal moom bale ñu gaay yi rek liñ leen jaamu lépp ndëkkate fenni neen li ñu sunu maam yi doon wax dara amu ci kenn mënut a tee ñu tajaxe suñu suñu yàlla yi yàlla yépp la ñuy rajax dara du fi des yi daal ñi nga jóg ak seeni martu rek te xam nga lu xew moom bu xasee xew xew na xam naa ne gëmoon nañ ne yàlla yooyu ku ci laal sax yàlla da nga dafa ngay doxee dee waaye daal ba ñu ba ñu ba waxee jenn mu ne gàncax rek ñu toj ko daal la mbir ma départ jigéen ñi daal a nga foofu seeni kuur rek di rajaxe yàlla ya di toj xam naa ne ci lekk nag yi la ñuy mujj ndax nag yi kenn du leen lekk en soo fa demee nag day suur ba bu góoree ba jóg day niin ngir suuraay lu koy tax a niin bu bëggee lekk ci marché bi lay dugg su dikkee fekk borom su pame lekk na su pame sa borom soble day lekk soble sa borom salaat mu lekk sa salaat moom daal lu nag bëgg da koy lekk te yow da nga naan alhamdulilah sa yàlla man la siyaara si tey man kay sama addina tey jii fi lay doxe jag bon nag de nag yi borom béjjën yi guddi yi ñuy jaay fii di ko di ko di ko buuse ñoom am na ñoo xam ne ñoom lañ fay jaamu am na dëkk yoo xam ne bu nag góoree ci dëll bi nga dof ba di ko sa oto di ko klaxonné di ko jiima eh, emmerdé din buñ nañ la duur ba nga tàlli boo amul sax ñu taal sa oto amma mbëkk ko nag waxaalisi ko soo ko mbëkkee moom lañu lay pandar taal la ñipp di la seetaan ñu ne daa dafa dafa rey suñu yàlla indo yi ak ni leen sénégalais yi bëgg lépp di leen roy ci ay colin di leen roy ci ay way ba am ay group indo yi fi nekk di wax indo fiil indo nii ki nii si yéen gaa yi nekkete yéen ay tabax la seen gaa yi di jaamu waaye fi mu nekk nii daal mbir ma doy na kiimaan yàlla yooyu daal xamu fu ñuy rawee ji waaye ginnaaw ñoo dawal seen bopp te te ba foofu la ñuy doxee du ñu ko def ba ba ñu dee ña nga leen di tajaxe benn par benn indo gépp daal yàlla yaa nga ne xalang loola xam naa ne waras na caa boole jaala wasaaq al batilu inna al batila kaana sawqan nga gis teraanga ni muy def doomu aadama yént yàlla moomat sax ba muy ubbi màkka ñoom julit ñi ñoo doon bëmax yàlla yi di ko tëjal seen bopp di bëmax di daane di sànni ca biti waaye mushrikeen yi dañoo taxawoon di setaan waaye gis nga julliti inde yi bañ defalee teraanga yëfari inde ya yëfari inde jëlal seen bopp seen i martu dajaxe leen seen yàlla yi ndax gis ngeen ñi amaluñ leen njëriñ ginnaaw amalu leen njëriñ nañ leen fi jëlee teraanga moo li gën a gaaw ci toj xolab doomu aadama boo ko ko defalee te bawoo rek bu yàggee danga ko moom ndax ko ëmb sax ëmb sa kersa loolu bokk na ci li xam ne moom lañ waxoon ne danañ leen ko leeral mu bokk ci la xew Inde léegi nag dañuy gàttal xibaar yi foofu ñu ñëw de seeg yéen ci yaman ba lan moo xew moo fa xew ah, léegi nag <clears throat> dem ak yéen ci yaman ñi nga xam ne ñoo dajaloo woon dem ne dañuy xeex yaman dañoo def istin istinfaar bu mag boo xam ne moom lañ fa def istinfaar nag boo ko xamul mooy ñëpp jóg dajeendoo ne nañ songandoo mennam songu mbir mi jeex lan moo waral Arabie Saoudite ak ñi mu àndal ne nañ songandoo mennam songu mbir mi jeex ne war naa leen yaman jamono ju nekk bu fa ger amee ca maam ya ba léegi dafa mel ni dëkk ba dafa aado woo bu loolu amee ñaare lu mel ni ak mbënd moo fay am ndox ma di bamb bob bombardé nit ña te ndox moomu daa mel ni day sotte kum féetal kooka mooy gañe te loola mooy la fa am léegi nag am na ay général ak kilifa yi soldaar yoo xam ne dañoo jóge woon yaman di dem Arabie Saoudite seen oto ñu di leen surveiller ci radar bi waaye daal am na foo xam ne bañ fa tolloo lañ dogante ak ñoom yëggatuñu leen ñu seet seet ñu ne meng ni tëmbeel ba ca ñande kenn gisul leen tëmbeel ba ca ñande daal ñoo ko raw mees lañu def kenn gisul leen léegi nag ba loola amee ñu ne Hautchouinés yi ñoom ñoo leen napp jàpp leen yóbbu léegi nag il faut ñu génne ñu ñu seeti leen ak fu ñu mën a ne léegi mbaa bi tey fii lay am tey ñu jaay seen bakkan te aussi yone yit ñu ngi leen dar kep wër leen ci bor bu nek ah légui ñu déglu légui ba xam fan lay wané di muju ak ay bëtam التحالف يعلن حالة الاستنفار ويدعو جميع القيادات العسكرية إلى رفع الجاهزية القصوى وهذه تفاصيل ما حدث اليوم أفادت مصادر خاصة بأن التحالف وجه دعوة عاجلة إلى قيادات هادي في مارب شرق اليمن برفع الجاهزية القصوى وإعلان حالة الطوارئ والاستنفار العام وقالت المصادر أن دعوة التحالف لرفع حالة التأهب جاءت بعد إقدام مسلحين مجهولين على اختطاف ضباط سعوديين كانوا في طريقهم إلى منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية كما أفادت مصادر قبلية بأن الضباط السعوديين غادروا في المساء مدينة مارب وكانوا متجهين الى منفذ الوديعة الحدودي لكنه انقطع الاتصال بهم لحظة مرورهم بمناطق قبائل عبيدة ولم يعرف مصيرهم بعد واو موم لاي واخ نونو نينا نك آه، مغرب دانيو آه، ديف آلة استنفار تاي نده ديمب سي نغون دافا ام اي كليفاي سولدار يو ماك يو خامني دانيو جيغوت مغرب دي ديم arabiyatu saoudia wala jéggi ci frontière bi am ay nit ñu ami ngànnaay fëkk leen te ñooña ay kilifa yu bari lañu ay mbooloo lañu ci armée bi arabie saoudite bañ leen fëkkee nag lañ jël seen téléphone ya ak lépp loo xam ne moom lañ mën a jokkoo ak ñoom ñu daal ne fes riir kenn gisatu leen ñàkk gis googu ñu leen ñàkk a gis nag moo tax nag arabie saoudite ak ñi mu àndal ne ñoom seen bakkan lañ ci gar waaye danañ jeexal gaañi ngir géer ba yem fa waaye ànd ak loolu yëpp nag a ah, dàq nañu leen adan eh, dàq di leen dàq ba yóbbu leen maarib dem ak dem nañ ak ñoom maarib ba ndar képp leen ba nga xam ne benn bunt rek lañ amati mooy bunt bi nga xam ne bàyyee nañ leen ko te koy daw ca ngay jaar ko te bunt boobu ma nga daw jëm kër jëm Arabie Saoudite léegi nag ñi nga xam ne ñoo di aussi yóne yi ñoom ndox mi terewul leen ndax ci montagne yi lañ nekkoon fa la ñuy jóge di wàcc si di xeex seeg ñoom ci dëkk bi ñii itamit ci dëkk bi lañ mobilisé ne ñoom it dañuy attaqué gars yi xeex ak ñoom mbir ma yem fa waaye nag aussi yu nii dañoo am benn sens bu ñu am sens bi mooy Arabiyatu Saoudia ak ñi mu àndal yeman dañoo mujj mere leen lañ lan leen meree bombardé gi ñu bombardé réew ma toj ko ak yàq gu metti nga am ba léegi population bi ci seen bopp te yaman dëkk pël la dëkk pulaar la laa mën a wax ndax dañoo gëm gànnaay koo ci gis mi ngi takk paaka koo ci gis mi ngi am clashine koof loolu moom araamu fa ci marché yeeg fépp foo dem dañuy gàddu ay fetal nga yaakaar ne ñii sax ay soldaar lañu dañuy am ay kaaw yu ñu def ci biir suuf def ko marché jaayu kaayu armée boo fa demoon lance missile sax di nga ko fa gis laa la wax nii batterie missile sax di ko fa gis lu ñu fa doon jaay daal amul. luñ fa dul jaay daal mooy lu kenn bëggut waaye lu kenn lu nit bëgg ci armée lañ ko fay jaay moo tax population ba yëpp population bu armée la ñu bu ay amee daal askan yi ñuufeen nañ féete fii njaween nañ féete fee cekkeen nañ féete fee sàllin nañ féete fee moo loolu mooy seen aada su boobaa nag giño yi dañuy def taxaaluf maanaam dañuy àndandoo daal def def elful fudul comme na ko yëfar yu njëkkee defe woon loolu moo tax bu seen guerre dikkee dana metti ndax dañuy armé wu te dañuy bari te dañuy bari mbooloo léegi nag aqsu bi saari dañ koo gëm boo leen tooñee moom il faut ñu fayu mbaa nga jàpp ko indi jox leen leen mi ngi nii lu leen soob def leen ko ñu àtte seen bopp loola moo fa xew gën maa ba dëgg la ma ngay dox waaye population bi seen loyer kenn mënu kenn mënu leen caa jëli léegi nag waa Maghreb gépp dañoo takkatoo ne léegi daal ginnaaw ñi amalu ñu njëriñ tëj sunum réew toj ko garab amul feebar yi di fi ne fi gàññ nit ñi di dee guddeeg bëccëg du ndox mu baax du lekk gu baax du fajukaay dara du dugg dara du génn dem nañu ñoom di mat juróom-ñetti at mbir mi nekk ci nii te ñoom dëkkuñu fi léegi li léegi xareeb rek ya koy jeexal léegi li ñuy def mooy ñoom lañ leen fi jëlee buñ leen fi jëlee jàmm na ñooy léegi nag ñu def ñetti kuréel kuréel bi mooy xoosi yónne yi ak soldaar yi ñu àndal kuréel bee mooy ñi nga xam ne ñoo ànd nag eh, ay Arabie Saoudite kuréel ba ca des mooy ñi nga xam ne ñoom nee nañu aussi yónne yi sequñu dara buñ fi desee mën nañoo waxtaan ba déggoo waaye ñii di toj réew mi te dëkkuñu fi lañ leen lañ fi génne léegi Arabie Saoudite dafay xeex ci ñaari front mi ngi xeex ak aussi yónne yi mi ngi xeex ak ñeneen ñu ko contre ñoo xam ne ñoom li leen intéressé mooy bëggatuñoo gis ko dëkkul yaman biir yaman mu ngaa bëgg gànnaay di rey doom loolu lay jeex bëggatuñoo gis roplaan yi naaw di tim dundu bombardé dégâts boobu daal fa lañ toll ci ji jamono ñu bàyyi nag dem ba ca kenam xool ba xam ndax nan la ñuy def ak nan la ñuy maanaam fan la ñuy fan la ñuy mujj ñoom léegi nag li ñuy tëjee mooy ndox ma ca yaman moom yàlla rek a xam nu mu toll ak taw ga muy taw ak wala ngaan ga ak daane ga daane tabax ya daa mel daal yàlla dafa ne xaar li ma ñëw raxas suuf si yaman ndax daa bari deret moom daal yaman kenn mënu laa misaal na fa ndox ma baree danaa leen tegal ngeen digg riiram ndox mi ak rajax rajax ji ak ni muy buube oto yi ak ni muy tojee kër yi ba ngeen xam ne yaman daal ah am na lu fa xew loo xam ne war nañoo ñaan yàlla ngir yàlla teggi leen natt ndax na nañuy tiis opp nga fa xiif ba nga fa xeex ba nga fa ndox maa nga fa waaw léegi kon ñu tegal leen eh, ndox mi ci yaman ak ni muy tajaxee dëkk ya ak na muy daane oto ya ak na muy yàqee bagaasi nit ña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 li ñuy wax ma marab jamono ja toje tojee te di ko nettali xaw ma lu fa xewoon waaye bu alxuraan del siwaatoon ba gis di xew yemoon ci jamono ak ni ndox mi def ñu gis ne la demoon moo dellu si la xewoon xewaat na ndax jikkoy bon ya fa nekkoon dellu si na yaman a ngi rajaxoo oto yaa ngi naaw ci kaw ndox mi ñaa ngi fiy tabax yi di daanu ndax yaman dafa nekk dëkk boo xam ne dëkk montagne la montagne ñi gën a gudd ci àddina bi bokk na ci yi nga xam ne ñi ngi nekk yaman taw ma taw bari woon na fa ba egg ci lool lool lool lool lool ca jamono ju njëkk demoon nañ ba taw xeewi fa bañ yaakaar ne doo du taw waaye fi ñu toll nii nag taw ba daal del siwaat mel na meloon dégg ngeen ndox mi kenn du leen ko wax ndox mi moom bari gi mu ne si koo takk li mu làmb ci yaatuwaay it mu si koo takk gaaw gi ndox mi gaawit it mu koo takk doole ji ndox mi amit mu ne si koo takk xam naa daal ku régiriram ndox mi teer sa oto ku dégiriram ndox mi daal teer sa oto dangay ngay tëb wàcce rek daw yéeg ci montagne mbaa nga daw raw foo xam waaye oto bi moom bu ndox mi dikkee da koy tëggal béjjoo bu mel ni ab aw kayit mu ànd ak moom di wéy xam naa ne ku fe li ma gis moom ku mu fekk ci oto bom riñaan la yàq sa oto moom da ngay dekkee yow man xiyaam naan ana ndox mi waaye sa mbir moom dootuñu ko wax oto mënu koo réyee ba lu ndox mi daf koy yenoo oto mënu ko diisee ba lu ndox mi da koy yenoo tabax mënu koo dëgëre lu dul si ndox mi egsi daf koy dajaxe lii moom xam naa ne néew na gis mu di am ci àddina ndax bu doon géej gu màbb sax ñu ne coonaam la waaye lii du coonaam ndox mu taw te bëri la ànd ak mbaltan moo indi tiis yi ngeen di gis mu am ci biir yaman yëpp yaman yal na yàlla tegg leen i tiis ndax jamono ji seen i tiis metti na loolu mooy li nga xam ne moom la indi mu bokk ci yaman li ñuy tëjee nag mooy ana lan moo tax tubaab yi di yor ay bombe atomique te tere jullit ñi ñu yore ko waaw li ñuy tëje mooy ana lan moo tax tubaab yi di armé seen bopp te bañ jullit ñi xam nga diine joo gis dafa am ay ngëm-ngëm yu ci am waaye mboolem diine yi nag daje nañ ci ne eh, mujjug jamono benn gouvernement dina am bu dajal àddina kàpp te gouvernement ngëm lay doon te def fi indi justice dàq fi injustice yahud ya nee nañu ñoom mu xalis bi ci ñoom lay génnee nasaraane nee nañu yonent yàlla Isaa moo ñëwaat génne leen ci jullit nee nañu imaamul mahdi moo leen ci génne daje nañu tamit ci yaajuuj ak maajuuj waaye nag niñ ko déggee moo bokkul bu dee ci yahud yi ñoom ak labbe yi dañuy wax yaajuuj ard maajuuj waaw baat bi nag anaab laa ko tekki ya juuj ard ma juuj maanaam ñoom dañoo wax ne ya juuj suuf la xeet wa fa dëkk ñoo tudd ma jooj ñu ne ya juuj ard ma juuj waa ma juuj ña nga dëkk suuf si ñu naan ya juuj waaye ñoom nee nañ mbooloo lañ moo xam ne buñ dikkee kenn du xam ne ñuy yem léegi nag wax nañ ci lu ne lii waral ñu doon def ay guerre étoile ak ñuy def ay ay ay ay ay ay ay xasrul eh, tasallux annawawi di tere ay armement nucléaire ak loolu lépp loolu la ndax ñoom dañoo gëm ne egg nañ jamono joo xam ne informal amatul osma boobu yonent bi di wax dina am ñoom seen téere dina waxoon ne balaa xettalikat bi ñëw banu Israël dañoo dellu Palestine loolu moo taxoon gars yi takk seen digg ne fa ñu delloo leen fa ndax fekk delluwuñu fa xeexkat bu maanaam xetalikat bi du ñëw te ñoom loolu la ñu gëm ar maj doon du am aar maj doon aar maj doon mooy daju maj doon daju maj doon Palestine la nekk ñoom li ñu gëm mooy nee nañ am na xeex boo xam ne ca penku ba lay jóge ay nit di ko def te waa Iran ca la ñuy bokk ñooy nekk benn te danañ indi lu deux millions de personnes ci ay doomi aadama mbaalu ko ëpp te buñ dikkee dañuy tasaxe tajaxe àddina bi ba ak ci Palestine ba ñëw ci aar mag maar maj doon léegi nag boo demee ci américain ñoom dañuy wax xaar magadan ñoom noonu lañu koy tuddee e, naar yi di ko wax xar maj doon e, waaye ñee ñoom yahudi moom aar maj aar majduun mooy daju majduun nee na yonent Yàlla Isaa day wàcc jeg ñoom ca daju majduun fala leen di reye ba ñu jeex léegi nag mu taxawal diine joo xam ne day tas addina bi kapp ñu dox junni at addina nekk ci jàmm ñoom ñoon lañ ko gëmee yahudi ak nasaraan yi nag ñoo bokk luñ ci gëm waaye ñi ngi teg nañ ko ku ne bi nga xamee ne union soviétique jóg na deuxième guerre mondiale jàll lañ wax ne union soviétique mii moo nara nekk ya juuj ard ma juuj fala mbir ma nar a jóge ba tax képp koo xam ne sax àndoon nga ak union soviétique nekk ab communiste dañ la ci boole Iugoslavi ba mu fi mu fi nekkee ànd ak ñoom dañ ko caa boole Iran bi ñu àndee ak ñoom dañ ko cee boole Égypte bi mu àndee ci ñoom dañ ko fee dañ ko cee boole li euh, Libi bi ñu nekkee ay communiste dañ leen cee boole même Sékou Touré Guinée sax bi mu nekkee communiste dañ ko cee boole ndax dañoo gëmoon ne ar armajdun buy am seen diggante ak ñoom lay am léegi nag waxatuñu ñooñu ñu ngi joxoñ chinois yi ndax nee daal euh, armajdun daal ñi koy def bu moytul chinois yi ñoo ñoo ko a def waaye léegi li tax nag ñu ne kenn du am bombe atomique kudul ñoom ñoom harbu nawawiya boobu lañu gëm ne mooy arbu bi ñuy def ci bu harbu nawawiya boobu nag euh, moom lañu gëm ne moom la ñuy freiné ya juuj ard ma moo tax bépp nit bu bokkul ci seen diine jooju di yahud doonoo ab bokkoo ci ñoom réew moom mépp la ñuy karante ne armement wu xeex ci seen biir mën ngeen ko am waaye armement bu ngeen nuy lee dara du mën a am loolu moo indi xas asrul xasrul nawawi bi ngay dégg ñi ngi xooloog Iran doo ko am ñi ngi xooloog Turquie doo ko am dagan na ci ñoom waaye daganul ci nun loolu moo ko indi léegi nag am nañu jàqare goo xam ne amus ñi koo am ndax julit ñi bi ñu aloo ci baytul muqaddas ne ring kum dajek ak ak soldats yi israéliens ba caaxaan jeexee ba dëgg des soldats yi ñoo mujj foofu able daw bàyyi julit ñak seen jàkka léegi julit ñeen nangu nañ seen jàkka librement lañ daan def yëpp ña ngi ko fay def te loolu nag ba mu ko ba mu amee Israël arrière la la la la tubaab bi tàmbalee découragé waat di wax ne a ah, bu Israël arrière nag kon Armageddon jotagut ba Israël moom il faut mu dàq jullit ñi ba génne leen fii ba dara du fi dess legui nak arma jun do ri ñew bu arma jun jagale nak ñu doro mëna gouverner adina bi lolu moy gouvernement bir bi ngeen di deg ay aqaid diniya la ñun bu ñu bayilo ci ñu diin ak ci ñu gëm gëm it ñom ñogi neub liñ gëm te mom lañu réaliser bu ko sotal yalla bu leen ci yalla dimbalé nak wassalamu alaykum